donc toujours comme ni ma koy ça se discute suñu jógee foofu dañuy dem seetiwaat li nga xamante ni daal mooy ay révélation yoo xamante ni Bougane Gueye Dany def na ko ginnaaw menaces yi nga xamante ni ak tension yu mu bëggoon indi ci Dakar jëmale ko ci seen caravane ci seen meeting arrêté léo kii nga xamante ni mooy Barthélémy Dias lii di caravane am ba bërki dé bu ñu ne Barthélémy Dias bu mu jël artère bi nga xamante préfet daal di koy interdire lépp lu mu bëggoon mooy ay sarax du dara lu dul indi ay tension daal di saboter élection yi ba sa sàcc élection yi ci biir loolu nag Bougane am nay révélation yoo xamante ni def na ko dama bëgg ñu seetaan yi Bougane Gueye ci micro kii nga xamanteni moy mooy Néné Aïcha bi mu nekkee Ndumbalaan. nañu moy résultat yi ñuy joxé ci jouru vote bi parce que amna information yu ñu jot ay nit ño xamné wajal nañu sen ay statisticiens pour di joxé ay résultats. Mhm. le dimanche inshallah donc c'est important d'en parler pour que ñu xamné dañuy sangu rek mais nelawuñu. d'accord jërëjëf merci alors merci. on marque une petite pause avant de revenir sur le plateau. li ñu jëm nee naa leen la diggante manipulation ak liggéey xeex la diggante fen ak dëgg et bu ñu bëggee joyanti réew mi jubbanti ko ba situation yii ñu nekk ñu jóge ci. Mhm. il faut voter massivement pour l'opposition parce que nag bu ñu génnee ci élection yi. Mhm. li may wax yéen a ma ko xam FMI Bachir communiqué FMI bi mu def lu wax dafa dafa ak autorité yu Sénégal yi corriger. yenn ci déficit bi. déficit subvention ci énergie ak hydrocarbure dañ koy vous subvention ci énergie ak hydrocarbure moo tekki lan. yi day wayfal day moy ceeb day yok moy passu euh ligne 44 day yok moy passu tata day yok moy passu euh Njaga Njaay day yok moy passu taxi day yok moy Jakarta bi ngay jël mu gaaw lol di régler ses problèmes day yok alors est-ce que dañu wara sétane lolou mu xew bu fekkee ne li ñu ñi dund doyul ci métit ñu bëgg ñu cay tegal leneen je dis la solution c'est de voter massivement pour l'opposition l'intercoalition mais surtout kenn gënul yey nag chinois du japonais du bay nug daf la leen làkk préparé nañu nu ñuy sàccee seen élection ba préparé sen ay statisticien bu gan Dany dañi la lako wax ci Dumbelaan tey tànq dégg ngeen révélation yu Afrique confidentielle Guinée ci ñu ñu yor pour nous donner les résultats internet bu ñuy couper, télé yu ñu war a communiquer communiqué bu CNRA war a génne ñi war bénéficier bénéficié wu ci intra du gouvernement bi moy site yi leen favorable ay Walfadjri ay Kewoulo ay APS ay RTS kon donc Bougane xamal na leen que dañu sangu waye nelawuñu lan moko fi jaar ci hold up électoral ki taxaw ci campagne ne opposition amu fi ñëpp man lañu andal est-ce que jaar na yenn manigance wala teg je crois que dañu wara bay sénégalais yi dem tanal seen bopp suba di 17 novembre kon sénégalais bu nek na nga vigilant ci fi nga jëm dellu si na nag ci lan lañuy voter suba moy diggante dëgg ak fen ñan ñoo fi yoré fen depuis 10 ans yoré waat fi fen depuis 8 mois yena koy déterminer seen bopp ñan ñoo fi yor dëgg depuis belle lurette

nee na fii ba juin deux mille vingt cinq Sénégal D'accord, nañu nak dimbalé len pour ngeen dem corriger ji sen déficit mais à condition subvention yu jëm ci walu énergie ak hydrocarbure da ngeen koy teggi lolu moy lan essence day yok courant day yok dund bi da fay gëna cher paas day yok xëy du am chômage dina am ndaxte salaire yi sax duñ ko mëna fayati kon nak sénégalais ñom ñoy xol ndax dañu bëgg liggéey ak manipulation ban lañ ci bëgg a yóbbu assemblée suñu bëggee liggéey seen dund soppaleeku xam nañu ñan la ñuy votel suñu bëggee manipulation xam nañu nan la ñuy votel suñu bëggee dëgg sax ci réew mi lépp soppeeku Sénégal teguwaat ci raay bi ñëpp xam xam nañu dëgg bi ñuy votel fan la dëgg bi féetee su dee dañu bëgg nag li fi nekk gën a naxsal gën a gasax xam nañu fen bi fan la féetee ñoom ñooy continuer dem defal seen choix seen bopp donc je crois que leer la ci bopp askan bi li ci des ay heure la kon sénégalais bu nekk na nga conscient jël sa avenir ba nga xamantene tay mi ngi ci sa loxo muy carte bi nga xamantene mo nek ci sa poche yow donc ya ko yellool pour voter ju ko donc je crois que dafa jot tay li di opposition meuna contrôler li nga xamantene moy l'action du gouvernement parce que gouvernement bi amna ñaari pouvoir muy pouvoir exécutif di pouvoir autorité judiciaire bi nga xamantene transformer transformé nañ ko autorité politique ci seen loxo la nek ku ñu bëgg a dañ lay jappul ku ñu bëgg a dañ lay tëjlu ku ñu bëgg a la dañ lay noppiloo kon nak je crois que le message est bien lancé duñ ci soré duñ ci sore soo diggee man la duñ ci sore parce que duñu propagande dañuy bàyyi sénégalais bu nekk conscientiser boppam ñoo def seen choix le 24 mars ñoo regretter seen bopp après le 24 mars ñoo def seen choix le 24 mars ñoom ñoo ñëwaat ne dañoo juum le 24 mars. Nous ñoo def seen choix le 24 mars ñoo ñëw nee nañu nañu li defoon le 24 mars ñoo def choix le 24 mars ñoo sommes le 24 mars nekk ñun ci fen la ñu kon nag tey yàlla su leen ubbilee fenêtre ci diggante bi at bi di le 17 novembre di fi ñuy li nga majorité mécanique jëm ci assemblée nationale ñoom xam nañu kan lañ ko mën jox pour mën a le Sénégal ci raay ba Sénégal dañ ko hérité ci ay loxo yoo xamante daf ko tabax ci infrastructure jëmale ko ci dund jëmale ko ci géopolitique jëmale ko ci démocratie jëmale ko ci liberté ba tey ki fi nekkoon mën naa ne mooy l'avocat de l'Afrique jëmale ko ci géopolitique partout à travers le monde lépp luy conférence moom la ñuy invité moo koy def parce que dafa taxaw xeexal Afrique keroog ba muy taxaw ONU di leen naan ci 1000 milliards 32 milliards ngeen di jox Afrique pour quelle raison alors que lépp fii lay jógee je crois que boobu xeexalul Sénégal Afrique la doon xeexal donc à vous de juger par rapport ak hold Bien bii nag nga xamante ni bëgg nañ ko saaj jëmale ko daal ci lépp luy communiquer su génnee bàyyi ci xel suñu tëjee seen TV suba bu mu leen bett suñu tëjee ay coupé connexion internet bi bu mu bett ma sàmb bu mu bett ma demb seen télé yi nga xamante nag citeel nañ leen ko ngeen xam leen bu baax Kéwoulo numéro 1 avec Babacar wal Walfadjri kenn dootu ko laam-laamee démb gis nañ ko ak cellule de communication bi ñuy dajaloo li ma ci bett nag mooy bi ñu taxawee journaliste bi ne ko yow yaa ne jox opposition majorité maanaam du bloqué dara ci régime bi nee na moom musul wax loolu changé na ko ba déformé ko ba indiwaat ko mais ñamu doon waxal sax gëmuñu ko d'abord loolu foofu rek laa amee contentement ñi ko invité woon Walfadjri ñoom ci seen bopp gëmuñu ko parce que la ñuy wax ci suuf ñëw na ba ci sama nopp dugg ci waa ji moo mën a du ma ci egg si ñoom ñoo ko waxtaloon donc je crois que ñoo ko dégg